asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di leen ziar bu baax di jégalu d' abord si démb ñàkk def video bi ñàkk def ndax dañu xawoon sonn rek moo tax euh, waaye yaakaar naa tey la nekk suñ juróom mbenneelu numéro boo xam ne comme comme dañoo waxoon ne lu tolloog juróom-ñaari fan da leen di jox sa kër yu jëm si wàllu neexal diggante rataxal diggante yi tey na moo nekk juróom-benneelu fan suba la nekk juróom-ñaar incha allah. leg su ko defé rek ngeen baye ko xel bu ko defé inshallah ñi nga xamné ñu ngi ci ay jafe-jafe sey ñi nga xamné ñu ngi ci ay jafe-jafe bëgg sey sëy amuñu tam occasion bi wala mu xawa metti lool ci góor ñi ci jigéen ñi ngeen fexé di def yii nii ñi bëgg jub ak seen rakki wala seen magi wala seen patron yi wala lu ma ci doon rek ngeen fexé sey yene di ko def bu ngeen gisé ñu leen koy jox lool kessé mo tax ñu leen koy jox pour ngeen mëna a jëriñu ndaxte bo leen ko defee ci lu baax ci lu neex yalla yiw gi ñoo koy bokk ku ko def na si bàkkaar nag ñu ngi ñaan yàlla ba képp def te jublu si lu bon rek moom bu si gis dara bu si gis benn résultat loolu moom ñu ngi koy ñaan yàlla bu baax kon nag dimbale leen ñu ñun ñu ngi dimbalante ak yéen yéen tam ngeen fexe di dimbale seen bopp te ngeen xam ne lu fi waay def rek ëllëg mën na ko cher kon ne yéen yéen a gën a xam li ngeen di def fexe di ko def si lu baax kon incha allah maa ngi ñëw dugg si secret bi muy li ngeen di gis nii seen écran bi lii nag muy secret bu am solo lool moom ngeen di bind da nga koy bind comme ni nga ko gisee nii ñaari yoon maanaam kun bisimilah rahmaani rahiim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallim su ko defee nga bind lii ngay gis ni cercle bi ne si digg bi maanaam rond-rond boobu noonu moom ngay bind sa tur ak sa turu yaay nga bind tur ki nga bëgg ak turu yaayam nga def ko ñaar benn bi da nga koy ëw uh, uh, nga takk ko beneen bi danga koy suul fu sedd guy wala nga sëf fu diis boo ko mënee sëf fu diis nga suul ko fu sedd dégg nga loo ko si def rek baax na waaye daal ñaari yoon nga koy bind. si gàttal daal ñaari yoon nga koy bind benn bi da nga koy sëf fu diis wala nga def ko fii sedd nga suul ko fuy sedd wala nga def ko frigo wala congélateur beneen bi mu ko takk loolu kese la. kon nag incha allah tey lii laa leen indiloon euh, incha allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla di ñaan ngeen ñaanal ñu di ñaan itam bépp waay boo xam ne ñëw nga fii jël suñu secret yi di ko def incha allah te am si yaakaar rek yal na yàlla sottil lépp yàlla mooy sottil lu waay def mu antu rek mu sotti rek yàlla la neex kon ñu ngi ñaan yàlla. yàlla dimbalante ak ñun dimbalante ak yéen ba nga xam ne lépp lu ngeen xamante ni yéen ko fi def te yaakaar ko fi rek si zahir ak si baatin yëpp yal naka ko yàlla mottali yàlla motal ko si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla guddal fan yu wëree ya yi yokk xéwal def jàmm si si sëy ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a sëy yàlla eh, dogal seen sëy mu mën a sotti ñi nga xam ñu ngi si ay problème yàlla génnee leen si si zahir ak si baatin incha allah wax dëgg ñu ngi leen di ñaanal te ñu ngi koy tibbee suñu xol bu baax Eh, ñu ngi fasiyene yeen fi di leen jox dig daje ba suba ak jamm inshallah allahu assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh